seen seetaan ci télévision Futur Média mbokki téléspectateurs yi dal leen jàmm ci li nga xam ne mooy stade Demba Diop tey nag ñu dajawaat fii te GFM Entertainment moom moo ñu fi indi ci combat bu njëkk bi nga xam ne koy tëgg tey ji ci ngoon muy nag diggante BBM ak arrêt bi muy nag combat boo xam ni GFM Entertainment moo ko tëgg ñu fas yéene ci boole ci grand komba bi Abdoulaye Ndiaye ak Grido xale yi am ginnaaw am palmarès. ñu am ñoom yaakaar waaye Quench dina bëre ak Ablaye Seye Junior ki nga xam ne mooy ëma euh, xale bi di Sa dina fi teew digganteem ak ki nga xam ni moom moo di euh, xale boobu le di Siteu waaye balaa ñuy sori Pathier maa ngi lay nuyu Pathier maa ngi lay nuyu euh, malaan maa ngi lay fay bu baax a baax di sant yàlla di ko bokk ak yow ak ñi fi teew ñëpp bis buñ doon séntu mu ñëw julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak i njabootam ak i saabaam ak i ñooñum di sëlmal ci ñoom waaye ñoo ngi song rëy malal. ñu jëm ci premier combat Pathier. mbaa xam nga ni xale bi ñuy wax bébé ëmma moo kàbbar jàkkaarloog ñun. ba ki nga xam ne mooy arab bi moo moo ñu war ginnaaw def ngemb li nga xam ne mooy ngemb lu lëm li. kon taay singala ak barñi di ñaar ñu nga xam ñu bëre rek a nekk ci ñoom. ñaari xale yaa ngi noonu ceeg yow boo di lewtoo muy premier combat de la soirée ñoom ñaar nag ki nga moom mooy bébé Eumeu daw na ca làng ga taxaw foofa lewtoo bu soriantoo lool waaye Pathier xale bi bébé Eumeu li mu sëf ci gàllaaj li mu sëf ci gàllaaj bëri na. waaw dafa deme wet léegi arab yi topp ko mu demee wet arab yi topp ko mu demee arab yi taxaw xool ko. combat bi dafa am lu rëy lu mu jur xam nga ni xaadim ngom rakku ëmmat seen fii la bëre këns mu dëkk bari ñi këns daan ko daan tey xale bi dafa ñëw revanche kii ñëw confirmé muy arabe arabi moom moo sëkkatal noonu bébé ëmoo waaye bébé ëmoo sukk na ci tànkam fas yéene jàkkaarloog moom di ko xaar di ko déglu ndax dina composé wala du composé bu composé ndax amul dina décroché war a fi résultat appel bi li wér te wóor mooy ñoom ñaar jege nañu saaku yi ña nga ca lang ga fu mu toll nii saa si tembe. loxoy Leewtoo bébé ëmma moom boot moo boot lang gi moo boot lang gi boot géew bi xëy na tegtal la bu du ko tegtal moo boot saaku yi mu waree tay nga malal saaku yi fekkiwul kenn dañ koy fekki waa dañ koy fekki saaku yi demuñu ci kenn <laughs> nit ñey dem ca ñoom arrêt bi ma nga jàkkaar jàkkaarloog moom bébé ëm ma ngëpp waaye demul. Ah, dafa xob rek. ba léegi kurpeñ dalagul kenn yattagul sa morom ñoom ñaar a ngi noonu ca géew ba foqante baaraam nga dégg noonu géwél yi tàmbalee taaral tàkkusaanu tey bi nga xam ne GFM entertainment ak lëkkaloo ñoo ko taxawal ñu ne Quench moo waree bari Bargny mooy bëre ak Alioune Seye Junior combat boo xam ne ñoom ñaar la leen boole dafa bëri ci wàllu palmarès daanu ci ñëwaat léegi faram fàcce ko waaye bu ne Ablaye Ndiaye kuy sa baay ñu ni Robert ñu ni koy lay booleer ñu ni Gris 2 kuy sa mag Gris Bordeaux foo waree ñu ni Fass loolu rek dana takkusaan waaye takkusaan bi ñu ko tuddee ci géej bi di leen too demunu ceng dikkunu ngaay demunu ceng dikkunu mbaylaar dóorunu xobunu xuppunu fuuralunu pàcceer moom bu loolu lépp bu jubee kenn mënu leen a àtte. waaw ma nga noonu. dañ leen di bàyyi seetaan leen ba xam nan la ñu fi ñu jëm ak arbitre bi léegi Bébé Ama ak ki nga xam ne mooy arab yi naa ko day wax ak ñoom ñëw leen ci géew te dana wax ak ñoom avertissement verbal dégg nga de parce que ma la wax verbalement dañ ko wax ak ñoom. waaw suñu insister nag mu mu mu indi avertissement. kon delloo si nañ leen si diggu géew boobu fa lépp dooree woon te fa lépp war a xewee diggante ay Shingo moom ngeen seen ci ndigam lu weex ak are bi nga waree bar ñi ma nga waree bar ñi dox ma mbay tawarkal la jóge bar ñi dafa rëy mu jaaña nga bar ñi biram sam rahmatullah alayhi nga bar ñi male nga bar ñi bekaayo nga bar ñi forza mi la xale bii ñuy wax gën su barñi la barñi nag dafa jógaat léegi bébé Eumeu sëkkatal na ko luy am sëkkatal na ko ko sëkkatal dox wuti ko lan mooy am lan mooy am araab yi xañ na ko boppam bébé maa ngi rëjëntale leen ba xam ku leen di àtte araab yi ah araab yi mën na xeex ah jóg na ci koom waaye ñaari loxo kenn du ko ko def baaxul day def gauche droite gauche droite nga bébé Eumeu mii waaw su jëlee lii ñu koy sëf du baax ci moom. jóge nañu ndeyjoor ñëw càmmooñ dem làng yi ndeyjoor ba mu neex la ñu làng si càmmooñ teg ko ni mu gën a baax war fa kàlla. tànku ni joor moom laari bi jiital waaye bébé ama tànku càmmooñ la jiital. ama ñam na ko bul. Malal. waaw kenn du jiital pied gauche comme pied d'attaque du dóor crochet long droit. da ngay soo ko defee ouverture la. waa ji su ñëwee rek day costé te ba costé baaxut. ñoo nga jëm ca làng ga bébé ëmm ak xale bi ñuy wax arab yi Malal il faut. muy jekki-jekki xam combat yi lan mooy waral lii di ci am ndax combat revanche lay doon. waaw Pathier ndax xam nga ñaari xale yi ku ci nekk ñoom da di gone tey ñu bàyyi seen i moroom nome leen kon ñoom ñaar kenn du bëgg daanu waaye bañ daanu tam Pathier waratu tax nu ñëw di tendeefal ak a xajamal takkusaan bi. déedéet fi lan du fi xajam tey magal dara du fi xajam diggante arrêt bi arrêt bi ma nga waree bar ñi géej di lebu jàkkaarloog tay si nga bébé ëmma arrêt bi dóor na léegi benn kurpeñ bu dal waaye ëmma mi ngi koy xool ci gët ñi foo xante baram ëmmaa ngi dox ndànk ci kawam bu tegee tànk jëm ci kanam arrêt bi teg tànk delloo gannaaw ñoom ñaar lu mu sul mu sulli lu mu suul rek mbay mu sulli ko loolu dëgg la entraîneur yaa ngi ne atam na jël tànk bi na ko jël na ko jël na ko daan na ko arab bi daan na bébé Omo arab bi jël na tànk ki nga xam ne mooy bébé Omo yegg ko fu sori lool mu lànk mu puus ko naj ko ba dóor ko ci suuf jël ndam li yëppul ay mbokkam mbar ay léebu lañu loolu rek la ci doon wut. kon takkusaan bu njëkk bi are ndam lu njëkk li dem na bari ñi koo koy Quench muy bëgg a tuus noonu. xale boobu nga xam ne bu jóge Bargny jóg bu jógee Sëbi Xataan jóg nga fi mu ko tibb waaw dafa jël dafa jël nga fi mu ko tibb waaw ah, loxo ba muy bañ dafa bàyyi loxo bi get get ko daa di koy bés mu daanu mu wane ni am na lu ko jàngal ci entraînement wane na ko defee na ko waaye Pathé tey boo xoolee stade ba Diop nii mu taaroo nii mu bindoo nga yaakaar ne ay mbër yu mag a mag a mag lañu la ñu nomee te ay ku mbëru espoir la ñu nomee kon GFM Entertainment gàcce ngalaama ñëw. bul sori ma ak yow nee naa leen du tey tey man. Entertainment. man rek. waaw yàlla bu ñu tëlee. déedéet. te dinaa la xamal leen xoolal lii. pàcceel xoolal nu mu jëlee tànk bo aj loxo ba ca kaw. waaw daal di koy teg teg bopp bi ci dënn bi. waaw wiite ko. bopp bi ci saatu dënn bi la ko def. waaw rek bës ko. loxo ba mu tee waa du mën a bor bi du mën def dara. waaw waaw mu get ko ñu dem. get ko rek ñu ànd ñoom ah, ci réalisation boobu de. déedéet. parce que xam nga ni ñaar ñii di bëri koo ci jox mag bu dateeg mag mi tàkku xaar mag ñu am problème. kooku mooy bàcc gi ak nga xam moom mooy laay nda ndangaan. laay maa waree écurie njàmbaar. kee waree écurie Double Less. yooyu Ablaye Ndiaye ak Gris 2. waaw ah. koo ci jox mag mag ma am problème. ah ndax ndax lan nga wax loolu bi ñu am ñoom ci la mbër confirmé ngay xam ni kii dana dana tëj làmb kii dina të am. te ñaari xale yi jom dafa bari ci ñoom ngor bari ci ñoom ngaar mi ñu sàmm ko te dina leen di tëj. Pathier bu ñu nee Robert mooy sa baay bu ñu nee Mamady Ndiaye mooy sa mag bu ñu nee foo bokk nga ne écurie Ndakaaru ndax doyul sas. doy na sas yaakaar yi la ndax ca mag ña Yékini mooy yaakaar. ndax jóg. le grand champion. le roi des arènes. le lutteur le lutteur du centenaire. kenn dootu ko weer. ma nga noonu. jóge fa ñëw ci Amadou Kati Diop dal ci Mbaye Cissé jóge fa dal ci ñoom Mbaye Diagne ñoom. Hmm. Moustapha Ndoye ah na nu Maawo sarax na nu Médoune sarax na nu Médoune moog waa a ña nga ca géwal yi arabi looy tàggoo mbokki yi. waaw ah, combat waaw da nga koy tënk nag. waaw parce que. grand Moussa Gueye. waaw amuma fayam. Mhm. Babacar fayam. grand daam dara damay may terrain te gëm naa dafay sa jamono mi ngi de ay trang mercole gis naa li mu def kontaan trop trop trop. léegi gannaaw ndam li fan nga jëm. kun lay jox. si gars yi la man si gars yi ñoom Onda. Onda. waaw ñooy bëgg naa leen. waaw ñoom ci mais dana ma dee ni yaa jàngal Quench si bëre. waaw waaw loolu yàlla def na ko. ma koy ñaanal mu am ndam. bëre ngattaan ak njool. nan daamali jege rek. bàcc guy gi dem na fomb ba ñëw. na jege rek. laay ndangaan moo def ngemb lu bleu blanc li muy ngemb xartum wala Lagos su ndaw ma nga noonu arbitre seet na leen xool ndax protestant yemb na consulte juge noppi nga nga ni waaw mu noppi nga nga ni waaw mu sifflé Kokoy Sitor génn seen diggante ñoom ñaar ki nga xam ni mooy Laye Ndangaan dem na eh. daan nanu ko daan nanu sori Laye Ndangaan daan na ko cong maa sori song mu song mu ñu téléphoné la li nga bëgg boo ko boo ko doo am déedéet li ñuy wax far dippa ngi nii waaw prip dip ma nga noonu ah dippa ngi nii danoo songoonte ñoom ñaar mu daw di ko jël. guy gee song guy gee songu laay ndangaan taf ko. xoolal cong bi dafa sori. la moo xew xoolal cong bi. waaw dañ ko cokkaas mu muy daw xeex dafa dafa. dafa jébbalu jébbalu la. daan na dafa jébbalu. delloosi delloosi ralenti bi ma woo. laay ndangaan ay sëriñam. dafa ñam waa ji mu daal di deqi. gis nga daf ko rëjj rek mu ñëw. da ko rëjj rek mu jóg. rëjj bi la doon daw. mu góolu ko. tëgg ko mbot. bal loxo bi ci poqataan bi. tëgg ko mbot tànk yi dem ca kaw. looy looy looy. parce que may ko temps d'arrêt. waaw may sama xalaat. bi muy ñëw dafa dafa jóg rek mu dogaale ko. daje waaw bal loxo bi ci poqataan bi. tànk bi dootul dellu suuf. wala daal koy fel ko mbot nag wañ ko ënd wañ ko ca kaw. ëndi. Ah, ñaareel bi combat ñaareel bi victoire. ngay seen noonu la ñi nga xam ñooy promoteurs yi Sidi Diakhaté moo sol mbub mu zone Aziz Ala Ndiaye moo sol mbub mu bële mi ñoom promoteurs yëpp nag ñoo wuy si chef entertainment loolu am na solo Abdou Aziz. c'est l'association des promoteurs. ndeysaan. amateurs yaa ngi noonu président. les amateurs gis nga leen. kanji ñoom ña nga noonu. ñoom ñëpp ngi noonu. mais naa la xamal benn affaire. signature contrat xas ak tëkku moo faam. Mhm. ak kañu. waaye loolu lépp bu jàllee géew bee leen di àtte laadum tey ndax bu combat bi jeexee caatu bawal dina comprendre am du comprendre caatu bawal ndax lam ko ni bu arbitre bi génne suñu diggante lii nga fi am coow li dangay tëdd boo xeexee danaa la duma boo bëree ma daan Alioune Seye Junior mooy yow la ñuy béggee yaramam. tënk ko tënk ko waaw lii buur moo ko daan dégg gajal dala lii day daw ci sa biir deret yëngal say sidi yokk sa jom ak sa ngor ak sa njàmbaar ba di nga doo di nga jomba daw di nga wane ginnaaw di nga jomb def lu ñaaw ndam rek ngay xëcc. man dem ca douze ba te ñëwaat. ndeysaan ma nga doon Alioune Seye Junior mooy tuus noonu. war <laughs> kàlla. seen combat yi ñaar matul sax une minute lu waral loolu. non ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur ñun ay ndaw lañ rek dañuy jàng yaa ngi dégg. Mhm. waaw man dañ maa dañ maa dañ maa yeb sas ma barki seenu Xadim dañ ma entraînement yi métti. mais ñu gis sa waajur ni ñu ko daaneel xoolal combat bi xoolal combat bi. commentaire combat bi commentaire ko. waaw kii dama ko cokaas mu daw jël si ma ma tuur ko. xanaa da nga ko seen bu mu jóg di ñëw. waaw dama ko seen dama ko fëgg ma xam naa day yooru. waaw ndax xam naa ñamul xeex moo tax ma fëgg mu ñëw yaa ngi dégg ma xam day ñëw ma bal ko ànd ak moom waaw nga nga mboot ko mboot mu leer nañ mboot ko mboot mu leer da nga loxo bi ko sol waaw waaw ñu dañ entraîné guddeeg léegi foo jëm man roi des arènes waxoon naa ko Bécaye Mbaye début Dugar bu ma jëlee tournoi Dugar tam xarit bi laa ko waxoon roi des arènes man dañu ma si ba léegi mais roi des arènes yoon bi yoon yomb de barki Seydou Khadim maa ngi si rek waa waa Seras waa Daru ak waa ngi dégg ak waa Daru Salaam <laughs> waaw yaa ngi dégg ah. ma jàpp tànk bi di ko diri pour yóbbu ko pour jox ko gars yi ko biir seras da nga bëggoon sànni dama ko bëggoon jox góor gi kan am na kuy dugal suñu nag biir seras waaw mooy góor gi kan waaw kooku laa ko jox ba ma jàpp dama lay daan jàpp sa diri sa tànk ñu dugal a biir Seras barki Seelu Xadim bu ñu pas waaw billahi wallahi taala dama ko fan Pathier moom barki Seelu Xadim pas de kii booy la waaw ba léegi sama papa la <laughs> waaw yaa ngi dégg dama ko fan barki muy wax ni yaa ngi dégg saa yu ma saraan émission jongante waaw te dégguma ko sax dama am lu ma neex ndeysaan barki Seelu Xadim day neexal lamb macha allah waaw ginnaaw bu ñu jógee fa nag papa ñu gërëm gaaw maa ngi gërëm bu baax yaa ngi dégg waaw suñu suñu ak sama papa Leydi Sarr. yaa ngi dégg ak waa Seras ak waa Darou Salaam. sa waa ji yaa ngi may dégg waaw da nga du nuyu sama yaay Dib Dib Diouf. waaw yaa ngi dégg ak ñoom Souley Sarr. sama bu baax dafa sonn si combat bi yaa ngi dégg. ay ñoom ay ñoom Koo Sarr ay ñoom Jëmu Sarr. ay ñoom Ngor Sarr ak ñoom Bure. ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm sant képp ku sant Sarr rek maa ngi ñaa ngi dégg waaw di gërëm jërëjëf waaw jërëjëf super na la na waa Darou Salaam nañ ma xaar maa ngi ñëw jërëjëf waaw di nuyu waa Touba Seras yëpp jërëjëf waaw papa rafet na jërëjëf jërëjëf waaw jàmm kooku moom mooy laay ah kamo dëkk Alioune Seye junior ah kooku dëkkante la Pathier Alioune Seye deux mu dëkk Amaneex ak ah, combat na a ne Amaneex dem na ba ñëw daa war a bëri lu waaye Alioune Seye junior Alioune Seye deux war na ko dëkk waaw dëkkante la ana promoteur yi nañu wàcc signé contrat yi. bu ñu xool ni ci defet la jóge waaw war na bëree. mbër dina daanu waaye dañ koy repêché. mu bëree waat mbër day juunu. waaw xoolaat position. waaw defaraat taxawaay beeg ngemb li. loolu loolu moo war. waaw waaw te ama neex dem na États-Unis ba ñëw. waaw bu yàggul la jógee États-Unis te ci ndam la jógee. gone Rufisque gi. Alioune Seye numéro doo jógee ci defet. waaw war na nañoo bëree. Moussa Ndoye ko daanoo. waaw war nañoo bëree. loolu yàgg na war na eh, bëree wane Moussa Ndoye. Moussa Ndoye eh Moussa Ndoye eh Moussa Ndoye Moussa Ndoye de mbay gën a yaraax googu mi doon mbay fay ca yaraax la ilaha yaa ngi waxante ñoom ak waa CNG am na solo xale yaa ngi noonu ñoom ñaar léegi ñu jëm si troisième combat Pathier Ladoum bu Rock Énergie ak caatu Bawol bu écurie Bawol mbooloo bu Tafatine ñooy waaj a ñoom ñaar ñoo nekk si géew bi diggante nanu nu nanu wax ñoom ñaar Mawo nanu nu wax diggante caatu bawol ak laadum ñoom ñaar ña nga ca géew diggante laadum bu rok énergie nen la pare mu ni waaw abi sif ndox seen diggante ñoom ñaar ña ngay leewtoo ca kaw. tànk ndijoor ak tànk càmmoñ la de. tànk ndeyjoor ak tànk càmmoñ. ñoo ngi ne tekk ñoom ñaar. laadum nag daf fi wane woon lu rëy rëy. ñoo ñoom ñaar. Gurpeñ dalagul. round d'observation la malal. malal bul fàtte nit ñi ci hôpitaux yaa ngi ñuy seetaan yal na leen yàlla wéral ak ñi ci kër yi wéré di yal na leen yàlla wéral ñi caabi féeti ginnaaw ñoo ngi seetaan yal na leen yàlla tegil natt woowu bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke si ana Cheikh Saad sama yaakaar yi teeg waa Ceer Ladoum la ñu jàkkaarloo moo def ngemb lu weex lii. moo sut. caatu Bawol moo def ngemb lu vert li ñoom ñaar moo sut moo sut waaw. noonu di lewtoo. sunu càmmoñ. la laadum moom la ñu jàkkaarlool. ki nekk sunu nijoor. mooy caatu bawal moo def ngemb lu vert li moo doon rëcc léegi. waaw te li muy amu ci. moom moo def ngemb lu vert li caatu bawal. doon tooñ. waaw pour laadum jóg mu dajeeg moom. ndeysaan laadum xañ ko loolu téye boppam. ña nga jàpp bawal ci songo la ñuy mujj ñoom ña nga jàppante baaraam ca kaw. caatu bawal lu mu am malal songo ko ku gën malal ñoo ngi ni ñoom ñaar. ñoo ngi ni tek laadum gëdd na ko caatu dellu ginnaaw. laadum gëdd na ko mu bañ attention. caatu bawal seen nijoor laadum seen càmmoñ caatu bawal moo woddoo moo ngemboo wax laadum ngemb lu weex. ñu ngi noonu ñoom ñaar di lewtoo. laadum seen càmmoñ caatu bawal dox na wuti ko laadum fëgg na ko. malal malal forcé na loolu. waaw forcé na ko forcé ku la sut. mën a rëjj ni laadum forcé na fayu ji it rëjj na laadum ba pare ñu jàppoo caatu bawul bëggul loxo laadum rëcc bëggul loxo bawa loxo laadum rëcc caatu bawul dafa takk loxo yi takk na loxo yi ca përëg ba laadum a ngi teey ci ci dënnu ngemb li caatu a ngi rëjj atu bawal mi ngi rëjalaadu ma ngi koy xaj boppam. attention. hyper na ko wàcc na tibb ko daan daan na ko taay bi mën na ko may na ko lu ne. gabar bi day day yokk incha allah dina ko may lu ne yor na léppi mbër nañ ci bàyyi xel bu baax a baax nañ ci bàyyi xel nañu bàyyi xel ci laadum ku fi jël laadum te amoo loo ko xonte di nga dundal laadum yombul. yaay commenté làmb ji ëndil nañ la ko wax ñu lii lan la noonu commenté nu ko. lii lan la. waaw père. xoolal lii nga wax ñu ba pare looy def nga soog ko def. waaw fii dama ko jàpp. waaw. man daan rek laa bëggoon. moom muy dóor. muy dóor gis nga mi ngi dóor. muy dóor man ma jàpp rek. xam naa ni moo ko jàppee lamb ji nga jàppee noo def. waaw mi ngi ñëw ndax bi ma ko jàppee dama ko xëcc ba mu ñëw mu yaakaar ni dama koy dama koy xar ma dugal sama loxo ci première ma dugal sama loxo ci xar-xar bi comme ni nii ma dàq deuxième pied ba. lu tax nga daw xeex bi da nga ko jaaxal ah? lu tax nga daw xeex bi. ah Quench wax na wax na boo mënee bëre xeex coono la. waaw Quench sama wax loolu. ah man man damaa mën a bëre moo tax xeex coono la si man <laughs> sama premier combat damaa ñëw di xeex yàlla def neneen père maa bëre woon bëre bu rëy bi man ak seen kumpa. wax naa ko fi wax naa ko fi. waaw léegi léegi si léegi daan nga bii jëli bu amul benn werante léegi lan moo nekk ci sa kanam. père ah man daal maa ngi sama ginnaaw samay mag. waaw samay sama entourage ñoom As Baro ñoom Medoune Ndiaye. waaw waaw ñoom Moustapha Seye. koy sant koy sant dimbali leen ma rek may ma sant. xam nga mais nag xoolal xam nga ngir dafay tuus. tënkal tënkal waaw dinaa tënk waaye père da ngeen ñuy dimbali xam nga mbër bu ndaw dafa metti sant bi da nga koy tënkal tënkal tënkal santal. waaw maa ngi sant waa parcelle yëpp maa ngi sant sama waa ASC Guy gi. waaw waa Entente maa ngi sant waa Waalo yëpp waa Mbulu Njaawaanu. waaw maa ngi sant sama papa di sant sama yaay maa ngi sant Paa Jaasi jërëjëf waaw léegi nag ànd ma rek même sant maa ngi sant benn boo fay ñaar Modou Ba ñett père maa ngi sant képp koo xam maa ngi sant waa daara ja ñu dañ ma jàngal alxuraan ba pare mbasa mbasa bu wàcc alxuraan mbasa mbasa maa ngi sant sama mag boo xam ne mooy génn dafa doon dafa doon jërëjëf jërëjëf ni Mbaye waay déet waay. la ñu andi guddi gi bi tàkkusaan gi nga xamee ni Manga 2 ak Mor Ngeer ci état bi la ñu tolloon. d'une même génération seen premier combat ñu daje. ndax gala jàpp la jàpp na ko gabari yi ñoo baax. ndax gala jàpp na giri. suma gàllaaj ju jàpp giri gisuma gàllaaj ju jàpp Ablaye. kon daal pare nañu daal ci wàllu woowu taxaw nañu daal macha allah. kii day mbër kii di bërekat. léegi Pathier ña nga jëm quatrième combat. diggante xaaral ma ñëw foofu diggante Jordan ak Balla Diouf numéro 2 Balla Diouf numéro doo moo def ngemb lu bula li moo ñu wan gannaaw takk ci peej bi ay affaire yu ñuul kele di Jordan moo def ngemb lu weex sërxal ci biir ab bula ña koy seet am na lu mu takk ci dënn ba boobu tëre lu mu tudd tere bu ñu takk ci dënn bi dàkk dàkk Allahu akbar yàgg naa am arbitre sifflé na seen génte ñoom ñaar génn sa diggante Balla Diouf numéro ak ki nga xam ni moom mooy. Jordan di Jordan. écurie xam sa cosaan ginnaaw raay Pikine Malick ni ko. waaw ma noonu. Elhadji Malick mu ngi Seydi Elhadji Malick maam ñaari xale yaa ngi léewtoo ca kaw la ñuy dalagul. Balla Diouf numéro 2 goxu lébu la jógee. goxu mbër loolu nag boo xoolee ci Leewtoo bi sax xam li nga xam loolu attention jàppante loxo waaw ndax dañuy jàppante loxo mu bañ ndax dañuy raak ñoom ñaar non loxo ya kawe na ña ngi xoolante ci biir bët ñaar ku ci nekk ñu tekk di téléphone sama morom ndax dafay xob dem ndax bu demee dina fa fekk dara ndax bu jógee waa ji du juyaloog moom jël ko ba mu fil ko romb ko dem loolu ay laaj la yu ñu sampaaceer. ay malal ay malal ay malal ay malal. attention maa la ko wax. waaw dóor na ko arrêté gauche. mais baaxul crochet long. gauche baaxul gauche bi baaxul sax moom. crochet long goos waaw gauche bi baaxul. mais buñ la paree malal buñ la bu ko paree ak loxo droite bu ko dooree mu jeex daw na jàpp attention jàppoo bi la bëggoon moom. baalu takk na ko. ku ne jàpp na sa ngem bu waaw ku ne pese sa morom xam lu mu. lu mu indi léegi Jordan da ko doon xëcc pour taf ko. mu bañ Balla Balla bañ. waaw bu ko xëcc Balla dafa ras. léegi nag dañuy xool ndax taf bi dina am wala taf wañ. waaw ñun jàppante ku ne ya jàpp nga sa ngembal morom. ku ne jàpp nga sa ngembal morom di nga Jordan ni mu ràcce. waaw ràcc na de. dafa rasu ba pare ràcc. waaw ba noppi jàpp loxoom ci biir. ci waaw waaw parce que. day bañ waaj a ëñ ko takk ko. waaw moo nga noonu ku ci nekk léegi nag. def de force moo tax mu wàcc à mi-hauteur. waaw takk na ko. takk na ko ndax nee na ko da koy tal tal ko tal na ko. doon na ko ci laa ilaaha illallaah. goxu lebu la la jógee. goxu lebu la jógee. Eh! lëëëë. goxu lebu la daan na ko daan bu mucc ayib. bëre bëre boo ko xam bëre la. daan na ko daan bu mucc ayib. daan kooku moom mooy ki nga xoolal pàcceer. da def ak moom rotation. ànd ak moom 360 teg ko ci suuf. ànd ko. malan waaw siisu na da ngay xool fu mu ko siisu na fu mu ko buddee. da koo buddi dañu wër ba dellu si foofu. waaw waaw. faction ba amee woon. da koo équerre. xam nga xam nga compa da samp wër wëndeelu. da koo compa da koo samp wëndeel ko ba mu leer mu dóor ko suuf. mën waaw kaay toog kaay toog kaay toog kaay toog. toogal jël sa micro jëlal sa micro. waa eh Balla Diouf eh Balla Diouf. <laughs> Balla Diouf lii mbaa jàmm la. père. xoolal caméra bi. père lii du dara man waa Wakaam ñoo ma tax a jóg. xoolal waaye tourné nga. barki Seydina Mohamed waa Wakaam ma tax a jóg. waaw damaa sonn père man dama ne dama yàgg a jooy Wakaam mosul am mbër. Wakaam mosul am mbër. waaw. parce ma xool ko xool ko xool ko xool ko mu métti ma trop. ba bëri ay morom yoo xamante ne. ñu wax ñu wax ñu li nga bëree. mais xoolal li may jaay doole ma zongale ko. dama zongo li ma zongo la dama gis nga jàpp da nga ko yokk ngeen jàppante nga yëkkati ko wër wër wër ndoog moom si kaw da nga ko tël waaw waaw da nga ko tël yokk ko li yëpp li yëpp ci li yëpp gars yi la Balla Diouf waaw da nga ko tël yokk ko dama ko tël waaw yokk ko waaw mu arraché wu dootul tegu ci sa tànk waaw nga soog a am action bi waaw waaw uh-huh. di sant waa Wakaam père Wakaam ñëpp ñëpp jaraaf yeex ñëpp bàyyuma mag ma ndaw ñëpp laa sant gërëm leen. waaw ah barki Seydina Mohamed di sant eh, di gërëm Jatu Ndooy di gërëm ñëpp sama ñoom maam sama yaay añu nun dem ci Ablaye Ndiaye a fogole séeréer me xestim na nuun a ñaaja a paax a paax a paax nan dem te séeréer sa ñu dem ca Tousmo Bacer nu yóbbu ca géwél yaak Ablaye Ndiaye ma nga def noonu perkal su weex sunu xaadim ba mu fees am na sagar su mu sex ci gémmiñ gi am na sagar su mu gàlloo ci baat ba njool na taxawaay bi jekk na kenn la ca ànd mbër mi pàcceer ànd nag yow ne ma ngay njuub di dem séeréer saa ngay njuub duñ dem maa waxoon nu loolu kooku rek baabu ngom la moo koy tuusal ndeysaan ma ngay lagg yi dem ñoom sax dem ci Robert bi nga xam ne mooy bàyyi ko negi pàcceel. Doudou Bakar Sarr ak kan. Doudou Bakar Sarr ak kan. ak Pierre Tene ak kan ak Antoine Ndong. foo ma jëmee. maam yow di sali jari bi laa ma jox. jaay jaay li laa pàcceel ak Amady. jaay jaay na jaay duñu sori ma ak nan dem ci Tousma. ak Guèye nan dem ci Tousma ba ñëw. xale bi il est serein Pathier. sama yaram dafa daw. ndeysaan gis naa nga koy xool di ko nemm nemmal. sama a daw. ndeysaan lu daw la serein Pathier. Euh, yóbbu ñu présentation. mais na Pathier noonu bul denoon bul sàcc bi la moo dawal sa yaram Pathier. bi dawal sama yaram naa la ko wax léegi. Pathier sa yaram bu fan la jëm Pathier ban côté la jëm gauche wala damay damay ñëw góos jox la ko. ndeysaan. nanu xool yóbbu ma ndar dénk ma sa papa. laay laay la laa Alaaji Golbert bu baax. Ndiaye ñu ngal 111 ans kooku mooy kan. Ablaye Ndiaye. kooku mooy ja Corote moo def ngem lu weex li Corote moo def ngem lu weex li Jackson moo def ngem lu vert li ci kaw. Corote ngi nii Jackson nga nee di dem. entraîneur yi jox nañ leen consigne yu mujj yi. Sitor mooy arbitré. consulté na juge ya ndax pare ngeen consulté ñaari mbëri pare nga nga ni waaw mu ni waaw pare nga mu sifflé ndax mu leer mu teg loxoom te suuf moom corete loxo ndey jor corete à droite waaw Jackson à gauche waaw ma nga noonu pàcceer ñaari xar yaa ngi noonu ca kaw. nga corote moo ñu wan. moo ñu wan ginnaaw ñoo ngay demee léegi moo nekk gauche. waa corote moo ñu wan ginnaaw Jackson à droite. voilà mu ngi noonu. Dorothée moo ñu wan ginnaaw def ngemb lu weex tàll am lu xonq lan mooy am na ko de lan mooy am euh, Coroté dem na benn dem Coroté doon na jëm a Coroté boobu dafa dafa laaw la door na door na riposte na ko Jackson tontu na Jackson tontu na ko réll réll nañu ah ña ngay dem rëj réll rëj réll rëj door bu daanu rëj na ko ko de door bu daanu door bu daanu rëj na ko daan na ko buub daan Jackson daan na ko rëjj na ko daan rappel ko daan corote ko daan ko ah way xeexu gumba la euh, xeex jak eh, eh, eh, Pathier dafa xeex xeexu gumba waaw xeex boo xam ne dafa gëm rek dóor waaw te ki ngay dóor xippee ba dem ko daal gis nga xoolal gis nga gis nga dafa gëm ma ngay xeex ci ah, ngelaw li da ngay booy dóor ki ngay rëjj gisoo ko ah, ki lay rëjj di lay gis waaw booy rëjj ka da ngay xool ki ngay rëjj <laughs> est malade eh, Fajer ma nga noonu rëgg-rëggee nañu ko daan ko day dem def ay garaajam yu mujj see géew ba ndeysaan gis nga gis nga la ñuy bëree soo xamee ni dal na dalati rappelal waaw ba nga fi nekk nga dem dem de suuf waaw noonu la ko def dafa rappel boo envoyé gauche doo def da ngay dugg ci rappel loo fa fekk muy loolu Sanderep ak Sokocim Sandereb ak Sococim ñëwal toog ñëwal toog Jackson Jackson toogal jëlal sa position ñu ngi laa ziar. Ah. lay nuyu. ñu gis nga bëri sa adversaire xeex ak moom xeex bu méttee métti soog koy daan lu waral xeex bi. ndax boo waxoon si àdduna bi ñu dëgg lool rek. ah dafa dafa waxoon signature bi loolu. da lay dóor ba nga ñaaw. waaw nag ma ñaaw am ñoo dëggaloon mais jël maa traité ko. yaa ngi nii en direct. waaw mu wax la waxoon dafa ñëw dëggal loolu noonu. ma dëggal ko ma ne kon góor yàlla la du ma ragal. Ah, ah. mais ngeen ngeen xeex xoolal xeex bi ñëwal commenter affaire bi waaw. commenter al combat bi. waaw ah, da doon dóor mu dóor. waaw wax la ma dëggal ma dëggal mais yow lu tax weeloo dóor bi lu tax nga riñaani ko rappel ko. waaw lamb doo weeree dóor ku bëgg dóor ngay box. ah da nga gis ni ko dóor dal na. waaw ma jël ko lamb doo sa lamb nga war a dóor nga ko rëcc daf la wóor ni dal. mooy rappel ko ay mbërën. waaw léegi yow koy gërëm. maa ngi yàlla bu baax. yow da ngay da ngay niroog Modou Lo. non non non temps boobu la ñu ma koy wax. yow kii day day niroog Modou Lo xale bi day niroog Modou Lo. waaw dem sa dañu nuroo loo bokk ko Modou Lo. bokkuñu dara. dañu nuroo. même ni ngeen di waxee sax yéen ko nuroo. waaw léegi ñëwal koo jë fa léegi foo jëm léegi gannaaw ko mat bi am nga si ndam. waaw maa ngi sant bu baax di jublu si waaw. di sant sama ñaari waa bu baax a baax a baax. di sant mère Awa bu baax amoo fayam. di sant Père Bakassi. di seet anniversaire bi. Bébé Sèye léegi ban nga bëgg a bëree. waaw dañoo sant dafa jox ah am na pare mm-hmm. balu football. Ablaye Ndiaye dafa yore Gallo. benn perkaal bu nu bind xaatim ba ca oom ya waaye Bathie ñi dem ci combat boo xam ni dina metti lool lool lool lool lool lool ndax Sandereb ak Sococim dañoo tolloo ci bind njool ñuul ñaaw bëri doole. ku la porté plainte yaa ko tooñ. ba nga noonu. ñaari xale yi macha allah ma doon seen seede. waaw. waaye mbaa xam nga ni sur alwali ay dara mu géewul mi ngi ñuy seetaan. ndeysaan mbokk islim mi nga xam ne mooy rakku président de la république bu euh, euh, bu Mauritanie. ndeysaan waaye maa ngi lay xamal ni bi kenn wuutew ko. déedéet waaw soo ko si dem. waaw gis nga loolu pàcceer xoolal taxawaayu soko simbi amul garde amul dara. waaw. tijji bopp bi noonu bu ñëwee réew mu daanu. siflé guñu. abi ah, siflé na siggi na. Sococim siggi na jël position de garde Sococim siggi jàdd dafa taxaw jodd da doon léemu na da doon ñaan sandere bu léemu ku nekk sa tànk ni joor nga jiital sandere ba ngay dellu ginnaaw daje nañu ñoom ñaar Sococim daf ko gëdd rek mu daje moom li mooy recul frein recul frein daje nañu ñoom ñaar maa ngi reculer sama xel a ngi ci yow attention sandere mu ngi koy sol sandere rëj nañ ko léegi sa sanderem soo ko si mi ngi koy rëj ci faar yi. mi ngi koy rëj. mi ngi koy ubbi ci faar yi di ko seet. di ko ziar di ko ziar pàcc. waaye sanderem gis nga bëggul benn yoon yéeg dem ci génn génn yi. ndax bu génnee saako jël avertissement. loolu lay bañ. moo tax dem na saako yo génn na saako yo a tey soo ko sim rëj na ko. ndeysaan ak yaa ma naal buñ leen avertir ak Pape Diatta ca Côte d'Ivoire. xale yi attention xeex na ak moom da ngay xeex ca kaw. te jënd naa ak moom. tëx na ko sanderem na ko tëx Sangaré waaw may ko temps d'arrêt concentration bi la yàq malal nee na supporter yi jóg leen concentration bi la yàq mu dóor ko arrêt gauche droite gauche droite concentration ko waaw bés ko daanu xam nga lu indi li déedéet dañu sifflé maawa jox ñu waay dañu sifflé mu jox ko combat bi bàyyi ko ak moom mu dàq ko mu dàq ko mu dàq ko ñu génn ko saako yi mu nangu mu ñëw mu nangu sëkkatal bi mu xam ni soko ci borom fit la danañ bu taxaw mu ni li ma bëggoon am naa ko mu taxaw mu dox ñëw rek mu daje ak moom xeex ak moom. Mm. rëjj ko rëjjee ko ni ko sirib jaaxa ko nag bi mu ko jaaxee la ko caxabal waaw bu leer nañ la ko caxabal dox ko caxabal wéeru ko xam nga lu andi loolu waaw dañ ni far mu woon ko ni dama la ragal waaw ndekete boobu daf ko doon jox combat da ko doon gasal kàmb waaw mu dàq ko ba mu yéeg waaw génn saako ñu avertir ko mu ñëw su taxawee rek mu ni li ma bëggoon am naa ko. Gris dem na ca géew mu taxaw nag naxoo. dem na ca géewu Pàcceer ma ngay seet xam nga lii nag mooy. bu xool suuf si ndax xoot naam xóotul. xóotul waaw am say repère boo ñëwee sa waxtu combat. ngi testé bu rëy loolu la tubaab tuddee tâter le pouls du terrain. ñaari xale yu xam ne ku ci ne mën ngaa bëre mag ñi. waaw ah, waaw Gris 2 Maodo ma nga ca géew ba. bu rëy avant Blindé di bëree ak Toumani. bu rëy rëy. Sanderet ñu ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay fay per. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax a baax. ñu gis nga bëre ak waa ji mu sëkkatal la nga dellu ginnaaw lu tax nga nangu sëkkatal bi. non loolu sama sama papa euh, moo ma ko conseillé rek sama papa moo ne bu arbitre ne për bu la jàppee il faut nga dellu ginnaaw tuuti may la soo ko mayee confiance ginnaaw yow bëre nga rek day gën a day tax day tax mu gën a gën la ñimee léegi looloo tax mu ñëwee dama dama ñëwaat rek liggéey Serigne Cheikh Sy ñu gis mu dàq la nga génn. waaw jël avertissement nga ñëwaat rek tàkk ci kawam indi xeex. waaw non pour loolu rek dama koy may confiance pour mu ñemee ma xam naa su ma teel a tàkk ci kawam mooy loolu dama koy teel a daan te il faut ginnaaw sama grand la ndaanaan la si bërëb yi. yàgg na si sonn sama grand la bu baax noo bokk tëj tëj tëngëj. waaw noo bokk tëj tëngëj bu baax. mu sa sant waa Kër Ndiaye wala wala séeréer. ah man séeréer la. ah foogale séeréer. waaye meqee meqee ñun si naan rek. <laughs> Pathier waaw lu ma la waxoon. waaw néew ma la woon dafa piégé waaj. waaw dafa piégé daf ko wan ni dama la ragal. gis nga bëre bi dem ba génn saako yi. waaw bu dellusee bu taxee waaj danaan li ma bëggoon am naa ko. waaw mu dox ñoo mu dajeeg moom. loolu sama papa moo ma ko conseillé moo ne bu arbitre nee për. tu as un për da ngay da ngay bu la attaqué rek demal ginnaaw même bu la jàppee génn saako yi. kooku sa lan la. sama papa la moo ma jur. sa papa sama papa moomu jur dafa sonn ci man ba dafa génnoon lu mat 2 si combat bi jox ma ko ak alma otoom fu ne mu dugg fa moo nga fële toog si kaw di ma seetaan kon sa ko gàcce ngalaama yow tey waaw sant waaw sant ko waaw maa damay sant sama papa bu baax ak sama yaay tàndal Awa Sarr sama sunu famille bépp waa famille waa Ndrep bu baax a baax di sant waa kër Ndrep nekk nderep moo ngi côté ginnaaw ndàngal ma ginnaaw ndàngal ma waaw ñooñ noo tax may sonn dëkku séeréer la dëkku séeréer biir mhm. waaw maa ngi sant waa Kër Ndialo bu baax noo son sama su bari neex fee sama su bari mais bu mu la caxabalee waaw gis mu xaw la mel na ku la yóbbu nga delloo si nga bañ nga delloo si waat waaw xam nga nun xam nga man man jaar naa si lutte olympique aha bon dem naa ba dem naa si ba Nice pare na nu noppi ñu leen di wax li nga xam ni mooy règlement bi arbitre wax leen li nangu ak li nanguwul li jaadu ak lu jaaduwul li taxawal sama ndeyjoor taxawal sama càmmoñ mu consulter juge assistant yi laaj ñaari mbëri siffle génn seen diggante gaa yi yëkki seen loxo ku ne dox jëm sa kaw moroom ndax bu ndaje jëlee tàkkam déet daan si xam dara léegi léegi ñëwal Pathier. Toumane. come on Pathier Blindé ñoo ngi léewtoo ñoom ñaar. waaw. Blindé warul wàcc de. attention Pathier xeex ba doon de. Blindé takk na si kawam de. su wàccee ba tolloog moom pour xeex ak moom Toumani mën na mën na répondre à tout moment mu dal ko soo sutee nit doo wàcc da nga koy tiim da nga koy tiim daje nañu ñoom ñaar daje nañu ñoom ñaar. daan na ko daan na ko. eh Pathé daan na ko. da ko dóor mu daanu. waaw daf ko dóor doon ko teq. mu dëj da ko dóor mu daanu bu bee dal. waaw da ko doon teq. bu ko dooree da ko doon tekki. daf ko dóor. daanoo gën a gaaw ci wàcc. xam nga dañoo ruufoo. mu uppercut mu bi la moo tax mu parce que dafa dal ci kawam. waaw ah, waay dafa dal mu ko doon mu jàpp xoolal li ma lay wax. xoolal gis nga. xoolal gis nga. xam nga dafa kor ci kaw. bu bee dal. dafa kor ci kaw. bu dal. daal di koy dugal uppercut mu wàcc. gis nga. dafa takk ci kawam mu dellu ginnaaw xaar ko mu ñëw mu gasal ko kàmb yoor loxo bi ca gannaaw yoor loxo bi ca gannaaw jàpp ci nit bi ippi ko dugal ko benn ñaar mu kaw daw mu dindi loxoom mu ni mbàpp ci suuf. non parce bi moo dal. waaw dafa porté pàccees. daf ko rëjë rëjaat ko. waaw waaw loxoom pour fiir ko mu dem gis nga fa waa ji dem na gis nga foofu la ko fii la fii la voilà benn fii la gis ñaar yet yent xoolal loxo bi daf koy wàcce pour pour pour kal ko di nga bi mu wàcce loxo bi di nga mënatul mënatul kal ba yeggul sax mënatul maintenir kal ba yeggul sax non il a ni mu jëla diis ci moom ah buuba ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay mbaa yaa ngi ci jàmm alhamdulilah ñu ngi sant mënu ma yuuxu comme yéen nag mais dinaa jéem noo dundee takkusaan bi ndeke ne affaire bi nii la méttee <laughs> yéen kañ lii moo tax boo leen paree seen baat du baax du socc de ah neex na takkusaan bi neex na waaw neex na dans a mesure où xam nga combat yi ci dix jours ah, daanaka la ah, télévision Futur Média ak GFM Entertainment taxaw ci communication bi jëloon benn défi ne à la limite duñ ko wane en direct. tey gis ngeen ni stade stade moom mooy que aujourd'hui télé bi nit ñi ni ñu koy seetaanee ak GFM entertainment je pense que lii wane na ni avec ou même sans sponsor lutte bi war na mën a survivre parce que nit ñi seen bopp bu bu ko télé bi wanewul sax dañuy tol seen dàll jël seen ay oto ñëw seetaan si combat mais bi nga ñëwee no bëgg sa bi ndax sa xel dal na. waaw sama xel dal na je m'attendais à ça parce que déjà mbër yi ñu boole dañu am ginnaaw moo tax choix compagne yi c'est très important mais aussi li day wan ni sénégalais yi dañuy seetaan bi. te télé bi aussi des fois daf leen di jox ay ay euh, ay événement yoo xam ne da leen di jaral sax ñu bañ a yem ci télé bi mais jógee seen kër yi ñëw seetaan. seen fierté mais GFM dina am feneen fu mu dem. ah feneen fu mu dem lii xam nga ñun ku ñu xam xam ne lii signal fort la. Hmm. aujourd'hui on va aller beaucoup beaucoup plus loin. am na ay ay yu bëri yoo xam ne nar nañ ko indi ci làmb ji lu bees ah loo xam ne moom mooy tax. vraiment li ñu naan GFM entertainment parce que le mot entertainment dafa hmm. yaatu. dafa yaatu yemul rek ci làmb. baatu anglais bu rëy la bu rëy la ak a rëy. donc lépp li nga xam ne ay ay pàcc la yu nekk ci entertainment. incha allah dinañ ko dugal ba nga xam ne ni ñuy aborder combat yi sax ak lamb ji incha allah dina wute ak li gars yi daan gis avant daañu dem sax ba boole combat ak ay soirée yu boole moom dafa que loolu yëpp xam nga culture dafa yaatu waaw dafa yaatu entertainment dafa yaatu mm. donc nit ñi nga xam ne ah, ñoom la ñu lëkkalool muy waa ñoom um, Luc Nicolaï ah ak GFM ak bu rafet bi te télé bi aussi daf fi nekk pour ubbeeku pour ñëpp képp ki nga xam ne sax am nga projet nga ñëw dinañ la ci yokkal taxaw si ba nga xam ne événement bi mu nekk réussite totale bu mel ni on est très content. lig baax na. il est yaatu na il est serviable. te il est à kon fa mu toog ce Mbour. yàlla na yàlla def jàmm ci moom ak sëñ Baara taxawu ko ak waa Kër Sëñ Touba amiin lig Nicolay tubarkalla macha allah. gis nga ni mu def de ponkal yi yéen laa bëgg. waaw mbër mi day day dëkk si waaye dëkk na kenn te kenn dëkkiwul. dëkk na kenn dëkkiwul. mu jël ndëndëm demaat du Séréer moom moo taxaw noonu suñu gauche suñu ki nga xam ni mooy Sidi Diamaguène nekk suñu ndeyjoor arbitre baa ngi wax ñoom si la moo jiite combat bi moo ko dirigé très vigilant si joor moo jiite combat bi ñu ngi lewtoo Modou Séréer seen càmmoñ Sidi Diamaguène seen nijoor ñu ngi lewtoo lewaatoo bi yokk nañu ko di mooy Leewtoo Modou Séeréer mu ngi koy déglu. Modou Séeréer a ngi ne teg. Modou Séeréer mu ngi koy déglu. Modou Séeréer mi mel ni mbëru bërekat la. Modou Séeréer mu ngi koy déglu. mel ni riñaankat la de. di xaar mu téléphoné ba am na fa action bu déclenché rek mu juyaloog moom. di jàmm gën Modou Séeréer. donc action ba ca kaw. di jàmm gën seen nijoor Modou Séeréer seen càmmoñ. ñu ngi Leewtoo ñoom ñaar. ngi noonu ca kaw ñu ngi Leewtoo dem na laaw gëdd na ko laaw mu xalaat ni da koy door direct mu door ko crochet long laaw bu ñu wàccee bu ñu bu ñu wàccee du baax ci yow sa tànku di nga jita nax na ko ko doon nax jàpp na ci ginnaaw ngemb la da koy xar da koy xar weñ na ko daf ko weñ nooy looy la da ko weñ fa laal tànk bi mu foog ni da koy xar dëgg mu weñ ko newoon naa la bërekat la daf ko weñ léegi nag mbër mu amul motivation. waaw amoo automatisme sa yaram. xoolal li mënoo def. loxo ba ca ginnaaw xolal xolal dafa wàcc laal fii fii la koy bot. ku koy def nga ko wéngee. koy def ku ko weng léegi ñu ngi dem ci face à avant combat diggante Siteu ak Sa Thiès Quench war na bëre léegi ak Alioune Sèye Junior pare nañ ñoom ñaar. Quench mi si géew bi ak ay débat débat Mbaye Dieye Faye ak Mara ak président Aliou Sarr Abdou Fall ñoo Sidi Diakhaté Aziz Ndiaye Assane Ndiaye ñoom Dieye ak Kandji Pape Mayel Diop borom Ndakaaru ñoom ñëpp ñoo nonu jëf wër na réew mi wuy si GFM jëf ju baax dafa am solo Tyson 2 ak Elton dinañ def face à face léegi Elton ah Elton borom combat la Tyson 2 Elton mala ndaw lu rëy Tyson 2 Elton Elton a ngi ñëw mooy alaaji maawa maa ngi ko bu baax waaye maa ngi nuyu yaayu nabi soxnaam ndeysaan amit sama doom nuyu na toute ma famille ña ah macha sama famille yëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar Elton ñëw na ñoom ñëpp maa ngi leen ñaanal jàmm Elton ñëw na ak boobu ñu am yàlla ko yàlla yokk. amiin amiin moog ca pas à pas nii séeréer toogal séeréer ñu gis nga ñëw rek ñu teg ñu dégg ni soo mënu woyal déglu sa jàpp ko daan ko dem sa yoon. waaw asalaamaaleykum bi laa ma sant yàlla di jëloon sa ñaari waajur. xoolal sa waaw. Mbër la moo traité mais li mu commencé yàlla xam na ne. commentaire ko commentaire ko. waaw mais xam naa day ñëw yàgg yàgg ba koy gërëm këram ñëw rek. xam nga dafay ñëw. yàgg na yàgg naa xam ne day ñëw. waaw loolu la am loolu am si combat bi si dara loolu. fii da nga ko a xaar. waaw dama ko jëloon xar bañ ma ma daw kii. nga nga nga ko. nga mboot ko waaw. mais ah. lu nax ko. Ah? wan ko ni da nga ko da nga koy xar mu yaakaar ko. nga wénge ko deuxième pied bi nekk. père man man dama mën a bëre école Cheikh Mbaba laa xam ngeen ko bu a baax. te kan Cheikh Mbaba. yow foo fekk baax Cheikh Mbaba mu ma yor. waaw fan la suuf moo ma yor nga fekk baax. maa ngi fi baax réew maa woowu. réew ma vraiment dëkku mbër la ah, ah parce que sax maa ngi maa ngi santaan sama a Sallo bu baax a baax parce que. Ah. si combat bi bu baax a baax. Sallo Sallo waay si combat bi. di sant presse bu baax. di waa dëkk waa Bawol maa leen sant. jërëjëf Pàcceer xoolal waa Kër Quench tege foofu teg ko noonu rek. xoolal lamb dekk na xoolal bi ambiance. xoolal waa Kër Quench c'est bon baax des na am na solo nii lañ daan jiitale Mbaye Gueye. moom Mbaye Gueye bu Fass. nii lañ ko daan def. ak kan étranger qui vivait parmi nous. nii lañ daan jiitale Robert. ndeysaan monsieur le président du CNG. nii lañ daan jiitale Souleymane Dow Aliou Seye mu turaale yi. nii lañ daan jiitale Diouf Allé. Papa Diop nii nii. bu bon diw nii taxaw dem si Pongari. moo représenté GFM le 26 mars ci SRD Demba Diop. jërë ngeen jëf. boo xam ne du ñeexum ñebbe ñëpp xam nañ ko ak jaar loo fas yéene sa yéen teg moom bu ñu boole yéen ñaar keroog. di ñaaw moo sant yàlla ji bi di sant ñëpp di sant samay waajur di ñu samay supporters yëpp man Elton mi maa ko jëlal sama bopp. tax non dama xam ne sama ganaar may na ma sens mais dañu war a bëre ku def 15 combats 14 benn défaite war nañu mën a bëre doomu daangu laa mujjee daangu. Elton diis na de. non man diisaay gi jaaxaluma diisaay gi jaaxaluma. Elton sa waa ji ñeme na la trop. waaw maa ngi sant yàlla julli si yonent bi sant suma ñaar waajur euh, di wax auzu billaahi mina seytaani rajim ah moom ne dëkk na mu fu ne yaa yombalal naa ko maa ngi liggéey di préparé li nga xam ne ni moom la demoon ba dëgg ma bu jour waaw na dëggal boppam taxaw rek mu war ko incha allah nga préparé ah, maa ngi liggéey ak sumay saaf ak sumay bokk di liggéey yaakaar naa di xaar parce que làmb ji soreetul le 26 la li ci des mooy jëf. li ci des mooy jëf Tyson lan ngay wax amateur yi ak sa mbokk yi. waaw man xam nga mbëru amateur ya mbëru amateur ya bu kerogee bu soobee yàlla na supporter yi ñëw nu feesal stade bi rek waaw ñu def lu ñu daan def bëre daan jàpp ak daan ko ñu ñu. Elton bu ñu ko xoolee xool la Elton moo la sut moo la ëpp doole. noo man moom Elton day bëre day dóore. benn maa ko daax a dóor maa ko daax a bëre ëpp ma doole. Euh, Elton sa waa nee na yaa ko sut. waaye moo la ëpp moo la ëpp doole moo dax bëre moo la dax xeex. waaw loolu moom euh, dañuy bàyyi ba jour ba dina kopp euh, doole mu daan incha allah. lan wax say mbokk. waaw di woo sumay mbokk rek euh, di woo sumay mbokk nga xam ne ñoo may jàppale suma dëkk yi ñu jàpp suma combat ndax xam nga booy bi nii par accident laa ko jële mais incha allah li tax ma jël ko dinaa ko wane bu soobee yàlla di woo samay mbokk yëpp ñëw jàpp si combat bi le 26 bi dans 32. di woo Sénégal bu nga xam ne mi ngi supporté Elton maa ngi lay ñaan nga ñaanal ko yàlla may ko dal si. boo daanee foo jëm. waaw ah, fu ma daanee fu ma jëm moom dëgg wax parce que moom nee na histoire la Sénégal kenn mbëri kenn ñemewu ko ubbil naa o bunti bëri nañ bu bu jour waar na ko trouvé allah. soo ko daanee foo jëm. su ma daanee. si Balla Gaye. moom du ñoo xam ñebe. non fa laa jëm su ma ko daanee. kii amul danger si man. kii dinaa ko duma dinaa ko daan bu soobee yàlla.

abi sifflé na diggante Quench. Quench nee na jóg leen. am na lu mu bind ci suuf tey fermé dox ci kawam. Quench dox ñoom ñaar ku nekk tànku ni nga jiital ku nekk sa tànku ni nga jiital Alioune Seye Junior ngemb lu weex Quench ngemb bu lu ñuul. ñaari xale yaa ngi si kër Alioune nga nanguwul taxaw day doxlook day doxlook

Alioune Seye tooñ sirip lay def te buy song day rappel ñaari tànk. Alioune Seye mu miin a bëre mën mën miin na bëre ci ay tànk. Alioune Seye mooy déplacé wu sànq ba léegi. boo gaawul bu dalee say tànk ba la ngay bëre mu weer la dem. Alioune Seye mooy bëre sànq ba léegi coin topp si ginnaawam. ñoo ngi dox. nga ni muy wërloo coin. ah arbitre ne na taxawal. Ah, malal. stratégie dafa am ki taxaw bañ a bëre ngay jël mais kii bougé mi pexe. nga bëre ndax am nga benn avertissement Coence Alioune Seye junior. Alioune ak Coence. kurpeñ daragul. ña ko sànq ba léegi ku nekk tànku ni door nga jiital. mooy wane ni ñoom ñaar am na lu ñu bokkee ci wàllu stratégie. Coence da ko bëgg a jàpp Alioune Seye bañ. Alioune xañ ko boppam. lu tax mu xañ ko boppam. daf koy xañ boppam. lu muy ragal. parce que moo fëkk ci doole. waaw su ko ah. ay pexem jeex. Quench seen kay déglu Alioune Seye li muy wut mooy def li muy def te Quench du ko jàpp. waaw Quench warul yëg lu dul waa loolu lay wut. te Quench da koo bëgg jàpp. di ko déglu rap. waaw Quench dafa tëj di dox ci kawam. saa yu ko gëddee mu xañ ko boppam. Quench dafa tëj. waaw ah avertissement encore. avertissement waat ragal naa ko ci Alioune Seye ñaar ñaari avertissement boo amee juróomi avertissement. combat bi jeex na waaw bii mooy ñaareel bi avertissement bii mooy ñaareel bi avertissement bi mooy ñaareel avertissement seeni baaraama ngay laalante. léegi Alioune Seye dina taxaw Alioune Seye dina taxaw waaw dina taxaw. gisaguma loolu de. ah foofu mu taxaw Pàcceer. parce que seen loxo ngi laalante xoolal coin coin. parce que dafa tey dox di ko xool jaxran. mais moo yéey pàcceer parce que koo xam ne dafa lay sàcc mbaa mu yooru la sëy parax la parax la. ma koo xam ne da lay sàcc di la moom da nga naan ko xool. waaw parax la. parax la parax la. jàppante baaraam diggante coin ak Alioune Seye. Quench Alioune Seye dóor na ko. waaw daf ko bëgg a tooñ mu jóg. Quench dem na si kawam. daf koy tooñ mu jóg. pour jógee mu dajeeg moom mu yasaloog moom. Quench dem na de. attention jàppante baaraam encore Alioune Seye. Quench jàpp na ko. Quench sol na ko. sol na ko mu dellu ginnaaw rocceeku na. na ba set. ñam na Quench. ñam na ko rocceeku na. ñamaat na ko. et puis nga paari gis nga Alioune Seye. day paari coup Quench. Eh. bu dugg kon si jàpp na ko de léegi. kor na ko ca kaw sori na na ko ca kaw. lan mooy am. door na uppercut ñaari yoon. tey ci ngemb li Alioune Seye bal na ko ci poqutaan tey na ci ngemb Alioune Seye junior. kon si jàpp na si ngemb lii ña nga ca. du poquataanu ngemb li la téye. ñoom ñaar ña nga ca waaye loxo yi moo tax kon si mënul liggéey kon si ngi jéem a koy suqar bi ba koy suqar bi xar na ko mu bañ. Alioune Seck xeex na léegi. xam na ko mu bañ yokk boppam ci biir. wañ na ko mu bañ dañuy jargandalu ñoom ñaar jargandalu ñoom ñaar Pathier dañuy jargandalu ñaari bërekat lañu ñoom ñaar. kon si jàpp na ba mu dëgër mi ngi koy xaar ñaari bërekat lañu. mi ngi koy xaar Alioune na. Alioune Seye day bañ day rasu. waaye attention ak Quench. Uh-huh. loxo yaa ngi ca ngéem la bañ. Alioune Seye kal na ñaari loxo yi. setti nañu ñoom ñaar. waaw kañ mi ngi koy dóor bañ na ko mu sigi Alioune Seye na bàyyi xeex bi te bëri ci suuf moo gën a ndax saa yu dooree Quench yokku ci biiram. ndax Quench ngi gën a sori ci moom. day yokku ci biiram tibb na ko tibb na tànk bi. tànk bi lan mooy am. jëli tànk bi. Quench Quench Quench daan na Alioune Seye. Quench daan na Alioune Seye. jël bu rëy. Quench daan na Alioune Seye. jël bu dul werante. jàpp na ngembam. sañaxal ko sañaxal ko sañaxal ko. dixième victoire de Quench en onze combats. dem na combat de Quench. dem na Quench dem na. de Quench. Quench dem na. Quench na examen bi. jeexal na xale yi. léegi nag day jëm ci mag ñi. ah jeexal na xale yi. di doon ñëw na si géew bi. tey bari ñi dañu neex la de. Bacar doxal euh, wax ma li nga bëre. commentaire al ji. da wax moom. waaw. dama jël tànk bi dama kaa bëtt jël tànk bi. point lu tax mu bañ dem nga lu jëm ko kal mu bañ nga kale ko ji puus ko mu tëdd lu tax. man bari ñu laa dëkk te man damay bëre damay bëre ba dee. Quench sangi Quench Alioune Sèye ngi junior Quench dinañu wax léegi Alioune Sèye junior lan la bëree ak moom ñi ñuy seetaan xam lan la ñi toog xam lan la ñi ñuy déglu xam lan la Quench Quench loo bëre fi waaw damaa ñëw waa ji damaa ñëw parce que dañ na ma bu sa loxo jox na nga travaillé boo jàppantee moom laa ma lay jeexi parce que yaa gën a liggéey fuuf kon wàccee sa garra nga toog say tànk ma jël tànk bi mu bañ ma jël tànk bi da moom loolu moy combat bi mais père combat bi ñu ma si jàppale dafa bari man mënu ma. sax mais dama gis nga kal ko fii ma ko. dama nga kal ko côté gauche mu bañ nga yokk kal bi côté am ko lu waral loolu. parce que dama ko bëggoon a bëtt wër ko kon ci sago nga bëree. waaw parce ma yebee. ci sago nga bëree père Alioune Diop père Moussa lii la ma yebee. man du ma mbër muy jàpp man bu ma jàppee damay daay demal ñaanal waa Bargny demal demal tibb baa ngoog. li mooy sama combat Tapha Gueye bi rek. waa tibb baa ngoog wax ma. waaw bi ma ko duggee dama ko bëggoon yéen mu bañ. waaw fi kal nga ko mu bañ. nga kale ko côté droit. waaw kon da nga damay damay bëreeg chaque gërëmal. mais père maa ngi gërëm waa Bargny dañoo sonn si combat bi di gërëm waa Tëngéej père Moussa Faye Moussa Ndoye Dara Seck capitaine yëpp. maire Ñaaña Faye El Hadj Samba maa ngay gërëm bu baax tamit El Hadj Samba ci événement de tey moom sudul lit nu ko laaj ragal féede day wësëg lit lii nga dal yaa ba mu lii di gërëm suma père tamit dañoo sonn si lamba yi di ñaanal bu a baax booy sëy na ma may chance booy sëy moom laa bëgg booy sëy wala Modou Anta nañ ma may chance bu ma limee nag dangay damay ju technicien gërëm Boy Seye na ma may chance. nga kan may la chance. Boy Seye na ma may chance. wala Modou Anta may la chance. Boy Seye wala Modou Anta. tegal ma micro bi di gërëm ñëpp laay fay tamit maa nuyu au passage moo may may crédit gars yi ñëpp ma limul damay mbokku amateurs yi ñoo ngi am mbégte tey jii ànd xol bu sedd taxaw fii ci lamb ji nga xamante ni Luc Nicolas moo ko taxawaloon ànd ci ak GFM entertainment mbokk yi muy bis bu mag muy bis boo xamante ñaari mbër yu war a wane seen bopp tey ku ci nekk ci ñoom ñaar sa carrière bisu tey jii dina am lu mu la jural maanaam ku daan bisu tey bi dina am lu mu la jëral mbokk yi kon ñu présenté ñaari mbër yi nga xamante ñoo ko war a bëre tey Ablaye Ndiaye doomu Robert Diouf Elhadj Becaye Mbaye jërëjëf Elhadj Becaye ma ne ma ne. ci présentation ma oh. ne ana Siteu. arbitre baa ngay wax ñoom. Siteu ngi noonu. Malal arbitre baa ngi wax ñoom. Siteu lii dafa waroon teel a dóor rek waaye du am du am face à face arbitre baa ngi si diggante Gris 2 ak Ablaye Ndiaye wax na ak ñoom bu ca noppee daa ngi nag dugg seen diggante sifflet nee na pare nga mu ni waaw mu ni nga pare nga mu ni waaw mu fas yéene kon sifflet am na suuf su ko Ablaye Ndiaye ëf nee na ko fogal sa loxo yi. nee na ko na ñaari juge yi ak superviseur. jël na seen malal arbitre seen diggante. tey ku nekk tànku ni la jiital. ñoom ñaar ña nga noonu. ku ne tànku ni jooram la jiital. ñu ngi ci stade Demba Diop Ablaye Ndiaye a ngi bëgg a jàpp loxo Maodo bañ. 19 Ablaye Ndiaye loxo bi la bëgg a jàpp Maodo bañ. roofoo nañu roofoo nañu ñoom ñaar roofoo nañu ñoom ñaar. mu bañ roofoo nañu. Maodo nga koy door si fàmb koy rëcc. Maodo nga mu bañ. génn na yi. waaw daf ko kott mu jéggi. kott na mu génn saako yi. Maodo génn na Ablaye Ndiaye saako yi. dafa fott mu jéggi. Maodo génn na Ablaye Ndiaye saako yi. arbitre bi na leen yóbbu ci digg géew bi. arbitre sifflé waat na Pathier. mais fi fi mu sifflé fii a baax malal. ci diggu géew waaye ña nga ca ña nga ña nga ca. ñoom ñaar dañu ñeme ñante. dañu ñeme ñante Pathier Maodo day dem. dirigeant day dem Ablaye Ndiaye xañ na ko boppam. Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye dugal na benn kurbañ. nëb na gëdd na ko xob ko. Maodo hypercute mu Maodo da koy door hypercute na ko. hypercute na ko Ablaye Ndiaye jàppoo bi bëgg na ko loola attention Maodo attention attention Ablaye Ndiaye rëpp na Ablaye Ndiaye rëpp na Ablaye Ndiaye rëpp na rëpp na Maodo ngi si kawam fettiwaat na mu bañ fett nañu ñoom ñaar Ablaye Ndiaye jógaat na taxaw fett nañu ñoom ñaar Ablaye Ndiaye jógaat na taxaw fett nañu ñoom ñaar Ablaye Ndiaye attention daf na kott na ko mu bañ kott na ko ay eh, Maodo daan daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko bëre lang kott mu wite ko. Maodo daan na Ablaye Ndiaye Pàcceer. daf ko kott mu wite ko. Maodo daf ko kott mu wite ko. kott mu wite ko. Maodo daan na Ablaye Ndiaye. waaw daf ko kott mu wite ko. Maodo daan na Ablaye Ndiaye. moom si kese mbër mi kese. mbër mi kese fii lay ñëw. waaw eh boy eh boy génnal. Siteu toogal. Siteu ak Siteu ñu ngi lay nuyu. waay. ñu gis na nga def état civil liggéey fa lu yàgg la léegi nag fu mu toll nii foo toll sa diggante ak Sa Thiès ndax pare nga. waaw li may njëkk wax mooy di wax ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba di nuyu Sénégal ñëpp monde entier di nuyu waa États-Unis bi ma jógee signature bi mënu ma ci wax ndax ki may signer ñëwul. waaw waaye maa koy ñaanal taw feex. looy wax fans yi ak supporters yi. nuyu naa ñëpp nuyu naa ñëpp. jërëjëf jërëjëf Maodo. Ndiaye dem na dem na dem na dem na Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye daanu na Siteu moo ko ah, Ablaye Ndiaye daanu na Gris 2 moo ko daan Gris 2 moo daan Ablaye Ndiaye Gris 2 mu ngi ñëw Maodo jii ak Ablaye Ndiaye mu nekkoon combat bu nekkoon examen de passage naka nga wàññi la ak naka nga dundee sa diggante ak mu nekkoon combat bu méttee dalal di sant yàlla di julli seenante bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur di sant adduna adduna tey laay sant waaw ndax man dama nekk xale boo xamante ne xaw ma sax ni may dundee sama adduna ñëw rek doomu aadama yi ak accepté ma kilifa yi di ma di ma bëggal seen bopp amul benn kilifa boo xamante ne rek damay sonn pour mu vers yow adduna bi man xaw ma damay dem ba man mii est mën naa continuer di dund làmb ndax nii ndax bu dee yaru fii ku fi yaru sa bopp nga yarul adduna bi ñu bëri ñu ngi fi yaru mais nit ñi ñoo fi nekk bëggal ma seen bopp te yàlla tax. gis nga bëre ak Ablaye Ndiaye combat bu métti ngeen xeex lu yàgg yàgg ñu dem si amuñu amuñu retour ma maawo waa wante noo dundee ak combat bi naka nga def ba daan tey ci Ablaye Ndiaye. waaw mooy li ma doon wax rek adduna bi yëpp dañ ma doon wax yaa ngi door a am combat moom yàlla. bu mu bàyyi bu mu bàyyi ay moroom lañ moroomam moroomam la doon bëreel. billaahi barki sëriñ Babacar si sama sëriñ. arbitre arbitre sifflé ngeen bëree ba génn si géew bi abi woowaat leen lu waral ngeen génn yéen ñaar. waaw yëpp moom moo dem moom la ñu avertise man dama ko waxoon naa damay ñëw sa kaw man ku mu mën ci doon xale laa xale laa te dama li ma giri di wax rek mooy sama ay adversaire ñooy say adversaire sa morom yi da nga leen war a daan avec la manière billahi làmb ji dama parce que je suis mal préparé billahi wallahi je mal préparé parce que dama amoon benn douleur si ndig mënu ma woon liggéey normal espoir ma defu ma baax liggéeyuma dara ma koy gérer. léegi bi ngeen round bi naka nga def ba daan Ablaye Ndiaye parce que gis ko mu jéem la xar nga dellu ginnaaw. waaw victoire bi nag Sidaat Sarr moo ko moom. chute bi noonu chute bi pare chute bi pare chute bi. waaw mooy bëre xam nga ni Sénégal la ñuy wax ne moom moo dañu bàyyi gaa yi nekk si mbapat yi ñu jàpp ñoo dàq bëre ñuy bëre arène loolu question de choix la ñoom dañoo juddoo si àll bi looloo tax ñoom mbapat ñu jël ko ñoom def ko faveur mais ñun fii la juddoo mais bépp foo bu am ci àdduna maîtriser nañ ko xamuñu nag dara dañ toll ci jàng te ñu ngi jàng maa maa ngi bu baax kilifa yi ku lim juum Medina yàlla mi am seen fay yàlla leen fay yoof bi nga yeewoo waa yoof surtout sama waa koñ Yoff maire yeeg baa yeeg ñëpp ah Cheikh Matar Thiaw yàlla mi am sa fay yàlla la fay Imam Bamba Chérif Bakhayda wundu siibi borom asilam yàlla mi am sa fay yàlla la fay Thiar sëñ Modou am seen fay yàlla leen fay seen xabaan Mbàkke borom kan jour yàlla mi am sa fay yàlla la fay léegi fan nga teg sa bët ak papa ah, sama papa benn papa Paa Ndiaye ak waa Ngaay yëpp yàlla mi am seen fay yàlla na leen fay. ban adversaire nga bëgg. ah. ban adversaire nga bëgg kan la war a jox nga bëri moom léegi. waaw man xale laa ne woon daal bougé gu ma ba léegi fi ma yemoon laa yem. ba léegi ndaxte maa ngi xaaraat beneen ñu ne ma yaa ngi door a am combat ndax nee nañ ma yaa ngi door am combat ma ñëw def loo xamante ne sax daanu ma ko woon def ci yeneen combat man daal je suis là lu Medina bëgg lu Medina battre man man ma man ma fay. waaw Maodo Maodo noo ko daane. waaw père bëre rek. bëre bi la bëre rek ñun père. yanu loo ne woon naa leen ñun faas lañ jóge ko def da wax ma li ko daane. faas lañ jóge li ko daane rek laa bëgg a ni ma ko daane. yow yow yaa ma ko war a wax. na ñun ay xale lañu rek dañu war a fu ñu nit laal rek ñu tourné. ah donc ko tuur nañ ñu ko ndax ñun ay xale lañu. ah dafa kott ko. waaw waaw loolu yàgg na père ñun. ay xale lañu daal maa ngi nuyu sama grand Saloum Ndiaye. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Goumano jërëjëf. na yàlla dolli sa ndam. am na yar am na teggin pàcceer waaw xale waay wàccee leen ko waaw wàccee leen ko ndànk rek pàcceer kon takkusaan baa ngi noonu xale yi Quench ak Ablaye Ndiaye ak euh, Maodo réussir nañu seen examen du ñu sori maag yow benn mag mënatu ko bañ wax naa la mbër du bari feem mën am benn feem ñaar ñett ub ci laam daan naab lay njaay ci bëre la ko daane tey mhm. kottu ñu taf bàyyi la ba nga taf kottu ñu wiite kooku ku mënul bëre doo ko def. jërëjëf bi ci des bu ko kenn bañ. waaw waaw Ablaye Ndiaye ñoo koy encouragé. di ko encouragé bu baax làmba ngi ci kanamam man na ci am laneen. Hmm. yeneen baa ngi ci kanamam. jërëjëf yal na ko yàlla may ndam. jërëjëf Maodo yal na ko ndam li jig. jërëjëf rasul sa baat. jërëjëf Pathier ñu ngi lay gërëm bu baax baax di gërëm ñëp ñoo xam ne toogoon di seetaan télévision Futurs Médias di gërëm aussi l' ensemble des équipes techniques ak nos réalisateurs lii moo nekkoon tey jii ngoon si nga xam ne GFM Entertainment moom moo ko tëggoon jërë ngeen jëf seen déglu ak seen fidélité ci télévision Futur Média jërë ngeen jëf bonne semaine de travail et bonne semaine à toutes et à tous bonsoir chez vous